Almarem Faye di responsable politique ci ñi ànd ak Pape Siré Dia dañuy def point de presse bi pour waxtaan tuuti xam nga dëggu ak mën li ngay def moom mooy def njiit bu mot et que Thiès yàgg na am ay Thiessois yu nekk ci service au service de la République ay Thiessois yu mag dans l'histoire mais xam li ngay def ak mën ko moo tax homme politique yi fi jaar à Thiès mënoon a yegg ci niveau boobu ñu ci mel ni Pape Siré Dia un haut cadre de la poste parce que am na fa une carrière de 30 ans yàgg représenté Sénégal ci institution yu mag yi ci kuréel yu mag yi ci àdduna bi lu ci mel ni mbootaay bi dajale postu àdduna bi yëpp lu ci mel ni mbootaay bi dajale kuréeli caisse d'épargne yëpp am na ay notion ci finance ak gestion comptabilité analytique ak beaucoup d' autres yoo xamante ne bu ñu ko doon wax mënuñu mën mën nañ fi bañ a jóge te liggéey na luy diir bu yàgg boo xamante ne ñàkk mën li ngay def wala ñàkk xam li ngay def du fa yàggal nit euh, bokk na ci ñi nga xamante ne ci ñin ñu mag ñi ñi fi jaar Thiès ñi jaar dans l'histoire de Thiès politiquement tey mën nañu ko boole ci ñi gën a màgg ci politiquement ñi jaar Thiès à travers lim fi jot a def ak li mu jot a def moom ci dundam euh, joxe na boppam wane na boppam déployé na cees yëpp ci segment ci ci ci ci ci ci secteur d'activité yëpp maanaam ci mbootaay yëpp muy jigéen ñi muy monde sport bi waa kër waa tàggat yaram bi muy marché yi muy école yi muy lycée yi mais aussi muy étudiants yi donc déployé na ci dëkk bi xaaj deful xaajale ak seen boole ñëpp lépp ci li nga xamante ne moom la président de la république joxe comme directive depuis mu toog ci bopp réew mi en 2012 Pape Siré Dia sans lettre exact sans mu doon ko exactement taxawaayu maire la fi mës a taxaw et que président de la république orientation bi mu jël bi mu toogee ci réew mi ba léegi mu ngi ci bu baax et que am na lu bari lu ñuy xaar ci liggéey bi pour que ñu mën a defar Sénégal bi nga xamante ne moom lañ bëgg pour ñëpp incha allah Siré Dia mu ngi réaffirmer engagement am mu ngi gën a dëgëral taxawaayam ci li mu nekkoon tey la ci gën a nekk tey la gën a am ay ambition pour la région de Thiès tey la gën a mën a taxaw pour l'intérêt de la région de Thiès parce que lenn kese moo ko ñor mooy jëm kanam ci dëkkuwaay ak ci dundinu citoyen thiessois ak thiessoises yi pour que ñu mën a dugalaat Thiès ci li mu nekkoon ci histoire politique Sénégal ak participation bi région de Thiès yàgg yàgga def ci biir Sénégal sur le plan ci wàllu koom-koom ak ci wàllu yu bëree bëri monsieur Pape Siré Dia dafa taxaw pour dekkalaat loolu mu ci jaaraale di woowaale Thiès waa yëpp pour ñu taxaw pour ñu préparer wu pour ñu gën a continuer di liggéey préparer élection locale yii di ñëw pour que mbëbëtam pour cees mën a yegg fi ko njort merci beaucoup sans sans waaw candidat la ci élection locale yi di ñëw incha allah bu ñu ci yegg ak jàmm waaw mairie à mairie mairie ville de Thiès. yi euh, nga yi quand même am na réalité politique la waaw mënul indi xaajaloo parce que en politique lépp dañ koy waxtaanee et que heureusement Pape Siré bi muy activé wu politiquement à Thiès ba léegi mu ngi déggoo ak tous les bords politiques sans exception te loolu réalité politique bi ngay wax nii bu bees bi ngay wax nii fekkagu ko fi woon donc defe naa dafa toog dafa toogee toogaayu ndey ji seex et que je crois que j'ai la conviction ferme que dina am terrain d'entente par rapport à cela. Mhm. Idrissa mhm. Seck effectivement en fait du réclamer c'est déjà une c'est un fait dafa nekk loo xamante ne daf nekk c'est une réalité en fait c'est une réalité politique c'est pas une réclamation c'est pas une revendication mais c'est une réalité politique qui a été déterminée par ses actes par sa présence et sa constance sur le terrain lañu euh, fi ñuy xaar Talla Sylla la loolu je pense que ce sont les citoyens thiessois ah, aux citoyens thiessoises et de euh, déterminer cela ñu wax seen satisfaction wala seen insatisfaction par rapport à cela mais par rapport au maire nous sommes dans le cadre d'une même coalition et que il a eu à accomplir un travail ku ci nekk mën nga am mbébétu yokk li mu liggéey wala def ci leneen on n'en est pas encore à ce niveau là mais gëm naa ni bu ñu yeggee foofu aussi du xajam. pour suñu gis-gis homme politique bu nekk Thiès guddi yi Siré Dia moo la gën ci taxawaay ci def ak ci liggéey. bon. yeggaguñu foofu dans le cadre de la coalition instant bi ce son les réalités du terrain politique qui déterminent l'envergure et la nature de chaque homme politique Pape Siré mu ngi am ay aspirations en fonction de ce qu'il a déjà accompli je le répète encore nous sommes dans le cadre d'une coalition comme ni ñu ko waxee woon auparavant dans l'occasion à l'occasion d'un autre point de presse chaque homme politique da ngay béy en fonction de ton pouvoir yàlla dafa def ni ñi fi nekk ñëpp depuis 2012 ba léegi moom moo fi bay waar wi ëpp donc moom moo fi nekk ça c'est un fait établi waaw xam nga Pape Siré Dia a eu des responsabilités dans le passé il a eu à résorber le gap du chômage à Thiès par rapport à certaines de ses positions mais il faut pas oublier que c'est un gestionnaire c'est un manager et que avec Pape à la tête de la municipalité nous sommes convaincus qu'il est qu'il capable de mettre sur pied des mécanismes d'équilibre permettant d'en finir pour de bon avec le chômage à Thiès. bien sûr la sensibilisation et l'auto-entrepreneuriat ñi ngi waxtaan ci inculquer jeunes yi ay valeurs d'auto-entrepreneuriat ñu gëm seen bopp gëm seen terroir loolu c'est le premier facteur pour xeex ak immigration clandestine auto-entrepreneuriat parce que dañu am culture sociale boo xamante ne dañu jàpp ne état mooy def lépp alors que dans une dans notre société war nañu commencer di assimiler ku ci nekk ak sa bopp lan nga mën a defal sa bopp pour jëm kanam ci wàllu koom ci wàllu wu nekk donc comme li may wax auto entrepreneuriat c' est un premier facteur buy war a tax ñu mën ci liggéey pour euh, freiner immigration clandestine yi mais du ñàkk dina am aussi yeneen mécanisme d' yoo xamante ne bu ñëwee ak auto entrepreneuriat dina permettre ñu résorber ñu ñu régler sa problème la xam nga c'est la finalité en fait il n'y a pas de paradoxe pour Pape Siré Dia à vouloir la mairie de Thiès il est conseil municipal depuis 2012 mais au-delà de ce mandat-là il n'a pas encore eu d'autres mandats des Thiessois et que et que et que et que et que la mairie de, de la ville de Thiès est la finalité en fait parce que ministrable c'est un portefeuille c'est une nomination alors qu'il a déjà fait pour les Thiessois et il a ses ambitions il, est insatiable en fait par rapport aux ambitions donc mairie bu Thiès c'est la finalité pour que mu jeexal ak Thiessois yi le contrat moral qui l'engage avec les Thiessois c'est pas ça le problème en fait Pape Siré Dia dafa nekk nit koo xamante ne boolewul daraam ak wax en fait bëriwul lu muy wax de gauche à droite mais il s'entend très bien avec tous les hommes politiques vous l'avez dit tout à l'heure Pape Amadou Ndiaye est allé lui rendre visite il y a exactement deux semaines tey moom moo ñëwoon ak presse bi alors ñëwul ak presse bi il est pas venu avec la presse et que, et que y a des organes de presse qui étaient à l'intérieur donc li tax yi des su presse dugguñu ça peut des problèmes de place ou autre chose en tout cas mënuñu avancer ci question boobu parce que nekkuñu fa woon ce qui est sûr c'est que il a toujours été ouvert avec les journalistes avec la presse avec tous les hommes politiques sans distinction de bord ça c'est la réalité il est allé présenter ses condoléances à la mère de Diatara avant la nouvelle réalité politique c'est l'attitude de l'homme il est comme ça hmm? effectivement yàggatul léegi euh, monsieur le PCA Pape Siré Dia dinañ ko gis dinañ ko dégg du yàgg dara en fait mi ngi fi sax mais xëy na du lépp lu muy def mooy la ñuy exposé au vu et au su de la société mi ngi fi et que très et dans un délai très court incha allah dina réactiver waat incha allah sur le terrain ñëpp di ko gis comme ni ñu ko bëggee mi ngi fi gars yi dañ ko gisul mais dina génn ñëpp di ko gis incha allah parce que xam nga jëf du réer et que dafa am ay circonstances mooy rey un homme politique donc Pape ja Dia ak deena politiquement àndul c'est une grande contradiction c'est pas parce que il n'y a pas il y a pas une occasion politique bu war a tax qu'il y ait du bruit politique que dégguñu ko qu'il est mort la preuve xoolal organe de presse yi ak tout ce qui s'est passé ces trois derniers mois là tout le monde sait que de chaque côté

xam nga xam nga le budget a déjà été voté et que vous l'avez vous venez de le dire mënul nekk mars 2021 xam nga nous ne sommes pas des experts en la matière en matière électorale mënuñu xam les tenants et les aboutissants pour wax kañ la war a am d'accord nañ mu am temps parce que y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu en fait ah, évaluation processus électoral bi ak yeneen ak yeneen fichier électoral bi ak yeneen ak yeneen et que il faut que tous les bords politiques s'entendent par rapport à une date boobu ba léegi ci discussion yi ñu ngi ciy donc il faut comprendre dañuy jàpp ni c'est des problèmes techniques et que ñu avancer date parce que n'étant pas euh, dans les secrets des dieux. Ah, ah, bon avec la la nouvelle vague la deuxième vague peut être une contrainte parce qu'on est en train d'évoquer un possible couvre couvre-feu à la mi-décembre ak yeneen ak yeneen donc comme vous l'aviez dit tout à l'heure techniquement, il nous est difficile de nous prononcer sur cette question-là. Parce qu'il y a des aléas de la vie qui peuvent entrer en cours et qui peuvent encore faire reporter la, la perspective. Titulaire d'un MBA de CESAC et de l'IAM, a représenté le Sénégal dans les autres sphères de la finance internationale, notamment l'Union postale universelle, l'IMCE, Institut mondial des caisses d'épargne, etc., pour ne citer que cela. Il a eu de ses longues carrières témoignant d'une témérité intellectuelle sans il est sans nul doute à citer parmi les héros de la grande histoire. Il a titillé les vives passions politiques de la vieille ville du rail à travers ses actes et s'est déployé sur le terrain social avec courage, abnégation, détermination et sans discrimination négative. Une personne très utile à la cité, sensible aux préoccupations de la jeunesse, à qui il a donné des emplois. Sa loyauté et sa fidélité au président Macky Sall sont sans équivoque. Il rassure, apaise les souffrances, nourrit les affamés, soigne les malades, achète les ordonnances, entretient les mosquées, finance les femmes, les ASC, réfectionne puis accompagne les écoles et lycées. Sans oublier l'appui constant au mouvement étudiant thiessois dans sa globalité. Il est un maire par excellence qui s'active au premier plan pour l'épanouissement des Thiessoises et Thiessoises, surtout les jeunes, à travers les axes dégagés par le président de la République. L'amorce prise par ce dernier, son Excellence le Président de la République, depuis son accession à la magistrature suprême, témoigne d'une volonté infaillible de travailler pour un Sénégal de tous, par et pour tous. D'importants défis nous attendent pour un Thiès rayonnant de nouveau par sa contribution au Sénégal que nous souhaitons, nous désirons construire. Monsieur Siredia, au-delà de sa participation magistrale, et insatiable pour servir la cité et n'est point dépourvu d'ambition. En fait, il n'a qu'un souci, l'épanouissement de sa communauté. Le travail accompli jusque-là est incontestablement positif, mais il nous faut faire encore plus pour les Thiessois. Et il affirme son engagement, sa détermination, mais surtout son ambition de faire de Thiès le fleuron du Sénégal. La recrudescence de l'émigration clandestine nous oblige à plus de créativité pour qu'aucun Sénégalais n'ait plus besoin de risquer sa vie. Pour remettre notre ville en mouvement et replacer les enjeux quotidiens au cœur de l'action publique, Monsieur le PCA appelle les Thiessoises et Thiessoises de tous bords à se rassembler autour de l'essentiel en perspective des prochaines élections locales.